ministère des affaires étrangères bu Sénégal moo ma jox kayit ni ma ambassadeur Russie di dafa bëgg ñëw cees na nga ko recevoir nga dalal ko ma recevoir ambassadeur bi ambassadeur bi indaale ñu benn accord benn projet d' accord ak la ville de Sébastopol jàngat ko bu baax a baax càmbar ko bu baax a baax ñi gis ci lu mu mën a indil dëkk bi ci wàllu kom ci wàllu affaire ci wàllu sport xale yi bëgg a jàng ay bourse yoo xamante ni ñoom dañ koy joxe ci wàllu culture boo xamante ni jëfalante entre dëkk ak dëkk dañ ko xoolee vraiment mu amal njariñ bu baax ak ñu laajte nag bu baax a baax ci état la ñu nekk muy affaires étrangères muy ambassade yi nga xam ñoo représenté Sénégal ñu xam ni opportunité la pour Thiès et ñun nag wax dëgg yàlla fu njariñu Thiès nekk ku ñu fa ku ñu fa seet dinañu fa fekk ñu indil ko conseil municipal bi nëbbuñu ko ñu jox leen document bi conseil municipal bi voté ko tey jii kon voté nañu donc accord de partenariat bi nga xam ni mooy dox diggante Thiès ak euh, Sébastopol bu ñu doxee ñu évaluer ko ñu gis suñu bopp dañuy dem jumelage entre de Thiès ak Sébastopol